Moustapha Mbacke Ngóone jéeg biy sëy ci kër te yàlla rek tax daba toog di sëy nii ànd ak yàlla ak jéeg bi nga xam ne dugg na ci sëriñ si bat armuwaalam jeex tàkk ci lan naa ko yeew waaw jeeg dëgg sax boo jugee bay ñaan lu ji bëgg nga sujika teel ngaa bëgg ngaa toog booy ñaan lu ñaan lu leen ji boole yéen ñaar mais naa ko noot toog ci kaw yor ko comme fas loo def sa jëkkër ci say doom lay fayu moo tax jekk am na nu muy toogee ci kër day dem ba doom ya màgg doon ponk li ñu ling ku ci dem dikk jeeg dina sëy ba jaay doom yëgu ca dara waaye jeeg dina sëy ba lambal doom war la ci yëgu wallaay ak a leer ay jeeg a ngi fi tey jur doom ku ci cëppantal ba xaw a dëgër góor njëkkante la